léegi nag li ngeen di dégloo nii dafa jóge ci téere bi ëmb kàddu yàlla gi téere googu waxu yàlla la te dafay wone kàddu yàlla ak yoonam su ngeen ko dégloo bu baax dangeen ci dégg ay kàddu yoo xamante ne yoonante ñoo ko bindoon bi ko yoonante bindee nag lépp dafay wone li yàlla sakkee ci njëlbeen ga ak lépp kàddu yàlla biibal gi def ñuy xamal itam ni nit ni yàlla xaajoo ak nit ñi mu sàkk kàddu gi def ñuy xamal itam plan bi yàlla lal pour moom ci boppam nit ñi mën a dellusiwaat ci moom ba ñu nekkaat ay xaritu yàlla nekkaat itam doomu yàlla ci kàddu boobu maanaam ci téere bii téere boobu nag ñu ngi koy tuddee biibal